bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sala allahu alayhi wasallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahumma callimna maa yanfacuna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 waaye duñu deñ di ko ñaan moom buur bi subhaanahu wa mu dottil ñu xéewal ya nekk fa moom ndax moo ñu ne ud'uuni astajib lakum ñu di ko ñaan yàlla mi ñu may fanaanug jàmm ñu di ko ne yàlla nañu yàlla may kendalug jàmm amin ya rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ne bés ni ki tey di yowmul jumaa bu tero dinañ leen waxtaanal njëriñ ya nekk ci bés bi waaye dinañ leen waxtaanal la bés bi làmboo ci xeetu sekere mu doon mbóot yoo xamante ne buñ fi nekkee naan dañ kay waxtaanee duñ fi jóge waaye doy na rek ñu ne bés la boo xamante ne ah la ci nekk ci xeetu ngeneel kenn mënu koo waxtaanee ci waxtu su gàtt waaye xanaa dafa fekk ni rek ñu war see war a mën a tegtaloo la suñu yonent bi baaxee sallallahu alayhi wa sallam ngénneel yaa nekk ci bés bi ak euh, la bés bi làmboo ci xaytu ngénneel ya nga xamante ne ñoo nekk ci bés bi kon Rewmi FM 97.5 yowmul jumaa bu teroo dinañu fas yéene waxtaan ak mbokk yi lenn ci ngénneelu bés bi ba keroog bés bi di jeex ndegem soob na suñu boroom subhaanahu wa waaye ndegem tombee na waxtu su néew yu ñu cirale ngir ñu fas yéene ko ànd ak ci waxtu wi ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di Mouhamed Bachir Cissé di ko ñaan yàlla yan ko yàlla sama aar ko amin ya rabbal alamin mbokk yi ñu di wax ne jumaa mubaarak nasalu llaha an yataqabala minna wa minkum saalihul amal yal nañu yàlla boole nangul yàlla boole may ñu xubul yàlla yàlla nangu lépp lu ñu jaam mu yàlla ci bés bi ci njëlbeen ba ak la ñu jógee koo jëfandikoo ci ginnaaw tuuti ak lu ñuy waaja a jëfandikoo ci kanam tuuti yal nañu ko yàlla boole defal xéwal mu doon xasanaat fil mizaan amin ya rabbal yal nañu ko yàlla defal yiw ci suñu téere yi jëf mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot njëlbeenu bés bi yonent bi sallallahu alayhi wa am na lum fi joxoñ ci njëlbeenu yomul jumaa nee na njëlbeenu bésu ajjuma waxtu su njëkk ba jullit bi di julli mu doon audience bu mag ba muy am digganteem ak boroomam mu doon njël benn waxtu julli ba jullit yi doon joxe ci waxtu su néew ci ginnaaw ci jàkk ja ngéneel ba fa nekk ci bés bi moom lañu ñu sahaabi bi di abdullahi bun umar radiallahu anhuma wax ci xadis bañ leen bëgg a dégtal nii bi idnillahi subhanahu wa taala an abdullahi bni umar radiallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qaal afdalu salawaati inda allahi salaatu subhi yowm aljumcati fi ljamaca xadiisun saxiix axrajahu albani fi saxiix aljaamica mbokk yi yan na yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot saxaabi ya yaroon ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa kenn si ñoom di abdullahi mu di doomu omar radiallahu anhu yan na ko buur yàlla gërëm nee na yonent bi sallallahu alayhi wa moo ngi nii dañu joxoñal ngeneel ba nekk julli suba ci mbooloo yowmul jumaa moo tax mu ne afdalu salawaati inda allah waxtu bu gën waxtu julli ba gën fa yàlla mooy salaatu subhi mooy julli suba yowmal jumaa bésu àjjuma fi jamaati fa jullit bi di joxe waxtu woowu ci mboolo waxtu bu gën waxtu julli ba gën fa yàlla waxtu yu julli ba gën fa waxtu yu julli ba am dayo bu mag fa yàlla mooy julli suba bésu àjjuma ba jullit bi di joxe ca jàkka ja kon mbokk nañ leen bokk sàmm waxtu julli suba bésu arjuma ci jàkka ja loolu mooy tàmbali ngéneel ba nekk ci bésu arjuma jullit bi war kaa mën a bàyyi xel jullit bi war kaa mën a jox gidd jeudi ci ngoon jeudi ci guddi jullit bi war a mën a fanaanoo ak ana fan laa war a julli fajar ana ci ban jàkk laa war a julli suba ngir moo war a mën a manxe yiw ba yonentu bi ne mooy waxtu julli ba gën fa yàlla waxtu julli suba bésu arjum ba ñu def ci mbooloo su ko defee nga bénéficier woo ci ngénneel ba yonentu bi joxoñ waaw ndax yàgg sa bopp rekk buñ la bàyyee ñu ne la nanga jëf-jëf joo xamante ni fa ngay amee ngëneel bi xawma foo koy xamee xawma noo koy defee waaye yonent bi bala ko joxañal sallallahu alayhi wa sallam ben xamee nii ñu nit ñu di la ko baaxee ci waxtaanu fajar bay jaar ci Rewmi FM 97.5 nañu leen bokk mànq yiw ya nekk ci waxtu julli fajar ci mbooloo bésu arjuma ak yeneen bés yi yëpp waaye bésu arjuma nag ndegem dañ ne mooy waxtu julli ba génnal yàlla kon nañ leen xool la génnal yàlla ci suñuy dund ak suñuy jëf ñu xar si suñu tànku tubéy nekk ci sax si taq ci rib waaw kañ bu dee dañuy taq ci affaire bi taq ci rib fii mooy fu ñu war a taq waaw wa fi daalika falyatanafasi l mutanafisuuna woowu fii la képp kuy xëccoo lii moo jar xëccoo wa fi daalika falyatanafasi l mutanafisuuna fii la képp kuy ngiiroo ngay foqale lii moo jar ngiiroo lii moo jar a xëccoo lii moo jar a respecté waxtu yu julli fajar ci jàkka ji rawatina bés jumaa bésu àjjuma ci mbooloo bi yal nañu ko yàlla yombalal bokk na ci ngëneelu yowmal jumaa bi léegi mbokk yi xadis ba saxaabi bu ñu naan aws bun abi aws radiallahu anhu wax ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qaal inna min afdali ayaamikum yowma aljumaati fa akthiruu alayya min alsalaati fiihi fa inna salaatakum maarudatun alayya jëlee nañ xadis bi ci saxaabi ba mu naan awus di ibnu abi awus radiallahu anhu yan na ko buur yàlla gërëm nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu baaxe ne ñu inna min afdali ayaamikum yowmal jumaati bokk na ci bés yi yay ñëw ci bésu àddina yi bés ya gën ci bés yooyu mooy bésu arjuma mooy bésu vendredi yonent bi ne ñu fa akthiru alayya min alsolaati fiihi na ngeen bëril na bëri la ngeen di julli ci man yonent bi mu ne fa inna salaatakum maarudatun alayya julli ba ngeen di julli ci man dañ ma koy yéggee dañ ma koy gaaral xadisun saxiix axrajahu albani fi saxiixul abi daawud mbokk yi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lu war bépp jullit yowmul jumaa ngay gën a bëril di wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama baarakta ala ibrahim wa ali ibrahim mbokk yi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko njëkk a digal moo man yàlla ak samay malaaka noo ngi ñaanal yonent bi ak yiw kon yéen ñi gëm yàlla nangeen ko ñaanal xéewal ak yiw bu ànd ak mucc te ngeen boole ko di ko nuyu sallallahu alayhi wa sallam assalaatu wassalaamu alayka ya xabib allah assalaatu wassalaamu alayka ya nabiy allah assalaatu wassalaamu ya rasul allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin allahumma barik ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam xeetu salaatu yi xeetu julli yi yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen ko gën a bëril na ngeen gën a bëri di julli ci si man na ngeen gën a bëri la ngeen di tudd salaatu ala nabi ya nga xamante ne moom la joxoñ te moom la tegtal nee na ndax julli ba julli ci moom ñaanal bañ kay ñaanal dañ ko kay yéggee imaginel nga wax allahumma salli ala sayidina muhammad ni mu gën a bëree ñu taxañ épargne ko daldi ko yóbbul yonent bi ne ko diw sàngam ci jaamu yàlla mu di si sa xeet moo la yónnee kado bi allahu akbar la la bi di delloo yàlla di la ko delloo bul xam ni mu mel sallallahu alayhi wa sallam léppam yiw la moo tax yàlla ne ko ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin yónni bi mala la du lenn du dara lu nga doon njëriñ ñeel mboolem bindaafoo ni sallallahu alayhi wa sallam ba tax na bokk na ci yowmul jumaa lañu ñu gën a war a mën a baril di ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ñu gën a baril la ñuy géema jàng suuratul kahf moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen di jàng suratul kahfi yowmul jumaa képp ku jàng suratul kahfi yowmul jumaa dañuy baranse sa jëmm ji leeru alquran ak leeru su saar bi keroog ban ci arjuma bi keroog arjuma di delsi sallallahu alayhi wa sallam moo julli boobu ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na akthiru salaata alayya fa inna salaata fa inna allaha wakkala bi malakan inda qabri fa ida salla alayya rajulun min ummati qaala li dalika almalak ya muhammad inna fulana bun fulan salla alayka saatan allahu akbar mbokk yi yonent bi sallallahu nee na akthiru salaata alayya na ngeen bari la ngeen di julli ci sama jëmm ji man yonent bi sallallahu nee na fa inna allaha naka yàlla wakkala bi malikan daa sampa malaaka inda xabri ci sama bàmmel ba ma tëdd fa ida salla alayya rajulan sama xeet ab waaye bu julli ci man min ummati ci samay xeet kenn ci samay xeet bu jullee ci man benn yoon qaala lii daalika al malak muhammad nee na malaaka boobu daf may wax yow muhammad inna fulaana min inna fulaana bun fulaan salla alayka saa yow muhammad diw sangam di doomu diw sangam julli na ci yow waxtu sangam allahu akbar maasha allah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax na ba léegi mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna awwala annaasi bi yowma alqiyaamati aktharuhum alayya salaatan aywa sallallahu alayhi wa sallam nee na bés ci nit ñi koo xamante ne yeeyoo naa toog man benn jotaay mooy ku gën a bëri kay julli ci man ku gën a di wax allahumma salli ala sayyidina muhammad ci dundam yonent bi ne mooy koo xamante ne moo am palaas bu mag ci sama jotaay ba may nekk keroog bés kon képp ko bëgg a togg ak bi benn jotaay day bëri la ngay julli si moom sallallahu alayhi wa wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kuntum fa sallu alayya fa inna salaatakum tablughuni allahu akbar yonent bi nee nañu salaa sallam fu ngeen munti nekk na ngeen julli si man fu ngeen munti nekk nangeen di wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin nee na ndax julli ba ngeen di julli ci man dañ ma koy yéggee dañ ma koy gaaral day yëgsi si man kon képp kuy julli ci yonent bi salaa sallam boo ko xamee ak boo ko xamul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 ñi di bokk ak yéen ci waxtaanu fajar ci ngéneel ba nekk ci yowmul jumaa ñu tànnal leen ci ba léegi xadiisu abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ida kaana yowm aljumaati kaana ala kulli baabin min abwaabi almasjidi malaa'ikatu yaktubuuna al awalu fi l awal fa ida jalasa al imaam tawwawu suxuf wa jaau yastamiuuna dikr muttafaqun alayh mbokk yi xadis bi di abi hurayrata radiallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi moo ñu baaxee ngénneelu àjjuma ba léegi mu ne ñu yonent bi daf ñu ne bésu àjjuma de bu dina dinañu samp bépp buntu jàkk ay malaaka ñuy bind tuuru ña dugg si ak ñu topp suñu njëkk ñi nee nañu jàkk ji bu demee ba fees ba imam ñëw toog ci minbar bi nuyoo nee na malaaka yi ca la ñuy tëj seen registre bañ doon bind turu ña ñëw ci jàkk ja malaaka yi tamit daldi toog di déglu la nga xamante ne mooy la imam di joxe comme xutba kon ñu gis ne bésu àjjuma ñu nag malaaka yi ñooy bokk di nekkandoor ak ñoom ci jàkka ja kon yow mi bëgg malaaka yi bind sa tur ci registre ba ñu yore ëllëg bés pénc ñu jël ko teg ko ci sa peesukaayu jëf mu diis gënn ndax dangay ngay teel a dem ci jàkka ja ci kanam tuuti noddukat bi bay nodd laata muy nodd na nga waajalal sa bopp nga njëkk ci jàkka ji nga dem toog ci première sàpp bi wala ñaareelu sàpp bi waaye nag ala kulli xaalin fexeel nga teel a dem ci jàkka ja balaa jàkka ji di fees malaaka yi di tëj ci registre bi su ko defee nga mën a bokk ci ñi nga xamante ne malaaka yi dañuy bind sa tur du ñàkk mu am sama yaay ba ma laaj ba xam jigéen ñi tamit sa la bokk ñu ne ko aha kañ ñoom it seen buntu jàkk malaaka yi dinañ fa taxaw ñuy bind turu ña jiitu ak ña topp ña jiitu kon teel a dem jàkk yowmul jumaa dafa am bénéfice dafa am importance boo xamante ne feneen fudut foofu doo ko amee feneen te doo ko amee ci neneen ba tax na ñu ngi bàyyiloo xel mboolem ñuy dem jàkk yowmul jumaa nañu waajalal seen bopp ñuy teel a dem su ko defee ñu war a mën a manqué yiw ba nga xamante ne moom la ñu yonent bi joxoñal sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ba léegi bokk na ci yiw yenn ñu yonent bi joxoñal sallallahu alayhi wa sallam ci ngëneelu ajjuma bés ni ki tey ñu ñu di leen ko waxtaanal fii ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na askan bi waaye baaxee xeet bi ngénneel ba nekk ci bésu àjjuma ba tax na mu ne ñu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam laa yagtasilu rajulun yowma aljumcati wa yatataxaru mastataa'a min tuhrin wa yudxinu min duxnihi aw massa aw yamassu min tiibi baytihi summa yaxruju falaa yafarriqu bayna isnatain summa salla maa kutiba lahu summa yunsitu ida takallama al imam illa gufira lahu maa baynahu wa bayna jumcatin oxra axrajahu buxaari kitaabi riyaadu saalihin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot sallallahu alayhi wa sallam moo ñuy baaxee ngeneel ba nekk ci bésu àjjuma bés ni ki tey ak na jullit bi di war a waajalee boppam ngir war a mën a dem jàkka ba nga xamante ne fara war a mën a joxe waxtu yu julli farata yowmal jumaa yonent bi salaa sallam nee na du am ci sama xeet ab koo xamante ne dina sangu sangu set bésu àjjuma mu laablu ci kemtalay kattanam na mu war a laabe maanaam kenn samay xeet moo xam góor la walla jigéen képp ku sangu sangu set sangu farata sangu janaaba nga sangu ko ci yowmul jumaa noppi ci ba pare nga daldi di laablu ci say kemtalay kattan ci li nga war a mën a laaboo wala nga laal ay xeetu diw yi nga xamante ne bu dee ci jamonoy seddaay la nga diw ngir sa yaram mën a taaru sa yaram war a mën jekk wala nga laal gëtt parfum woo xamante ne autorisé nañ ko ne julit bi mën na kaa war a mën a jëfandikoo ginnaaw bi nga defee lii ba noppi allahu akbar thumma yaxruju waa ji wala soxna si daldi génn falaa yufarriqu bayna isnatayn mu teel a dem ci jàkka ja ngir bañ a tàqale ko ñàkku jiitu ci jàkka ji muy tàqale seeni mbagg ngir mu di leen jéggi defut nii defut loolu ndax dafa teel a dem ci jàkka ji ngir mu bañ a tàqale ko ña toog ci jàkka ji sësaloo bañ a tàqale ko seen mbagg yi ba tax na mu teel a dem yonentu bi ne bu àggee ci jàkka ja summa salla maa kutiba lahu mu daldi di julli lañ ko ne nank julli boo àggee ci jàkka ja te mooy taxiyatul masjid mooy la ngay nuyoo jàkka ja gannaaw bu mu defee lii ba pare summa yunsitu ida takallama al imaam mu noppi jamono ba imaam di wax ci minbar bi muy xutba yonent bi ne képp ku def lii ci njëlbeen ba sangu laablu laal say parfum walla laal sa la nga war a laal génn te taxale ko nit ñi bu ñu toogee ngay jéggi defoo loolu nga julli tahiyatul masjid ba imam doon xutba nga noppi yonent bi ne lépp képp ku remplir condition ba mu la wax ci njëlbeenu xadis bi ba nga àgg ci fu imaam di waxee nga noppi fu imam di xutba nga noppi fay sa téléphone ne pat ne cell di déglu imaam yonent bi ne képp ku def lii illaa gufira lahu maa baynahu wa bayna jumaati l oxra lu dul dinañ ko jéggal ajjuma ba mu nekk ak beneen ajjuma bay ñëw diggante ajjuma boobu lépp lu ci def ci bàkkaar yonent bi nee na dinañ ko ko jéggal bur yàlla dina ko ko jéggal Buxaari moo génne xadis bi ci téere bi ñu naan kitaabu riyaadu saalihin mbokk yi nañ leen taxaw fii tuuti nar fii commentaire bu ñu ko waxtu bi mee yonent bi nee na képp ku sangu farata sangu set nga sangu farata te mooy sangu set mooy góor mooy ku jigéen yow ku góor nga sangu farata te mooy sangu set yow ku jigéen nga sangu farata te mooy ku sang mooy sanga set wa masta mastataa min tohorin yonent bi nee na nga daal di laaplu nga daldi di laaplu ci li nga man ci xeetu laap waaw nga jël sa yére bu rafet nga parfum ko ba mu neex wa yudhinu min duhnihi bu dee jamonoy seddaay la nga laal sa diw ba nga mën a laal ngir sa yaram mën a nes nesi sa yaram mën a leer sa yaram mën a jébbi sa yaram mën a taaru aw yamassu min tiibi baytihi walla nga laal la nga xamante ne mooy nga xamante ne mooy sa parfum ba nga am te jullit ñu autorisé ko mu war ko war a mën a laal ñu ne wa yatataharu mastataa laablu bi nga war a laablu mooy nga wat sa kawaru poxataan nga lelli say we nga wat sa kawaru naq loolu muy xeetu laab ba islaam ne jullit bi da ko war a laab bisu arjum gannaaw bu nga sangoo set ba pare na nga wat sa kawaru naq na nga wat sa kawaru poqataan ndax dafa bokk bërëb yi nga xamante ni dañuy conserver salte dañuy denc tilim dañuy denc sobe kon nii la ñuy déggee wayatataxaru mastataa min tuhrin da nga war a laab lu la nga war a mën a laab ci sa kémtalay kàttan ci xeetu laab ya nga mëna a laab ñu ne nga wat sa kawaru naq na wat sa kawaru poqataan na nga lelli say we boo ci noppee na nga laal say diw bu dee jamonoy seddaay la boo ci noppee na nga laal say parfum yoo nga xamante ne autorisé nañu ne dañ ko autorisé ne jullit bi war na kaa mën a laal xeetu parfum ya ñu autorisé ne jullit bi war na kaa mën a jëfandikoo nga génn ndànk dox ndànk walla sa waruwaay nga teel a dem ci jàkka ja te doo xaajale nit ñi gannaaw boo leen fekkee ñu toog defoo noonu nga teel a dem xaajawuloo diggante kenn ak moroomam summa yusalli ma kutiba lahu nga daal di julli lañ la ne boo àggee sa jàkka ja nanga juli mooy ñaari rakk mooy tahiyatul masjid summa yunsit topp ci nga daldi noppi ida takallama al imam bu imam génnee ba muy wax mooy jamono bu imam di xutba nga noppi fay sa téléphone nga ne pat concentré wu ci xutba bi yonent bi ne képp ku mel nii képp ku rampilul condition bi bés ni ki tey illaa gufira lahu maa baynahu wa bayna jumaatil oxra lu dul dinañ ko jéggal diggante arjuma bu mu nekk nii ni bés ni ki tey ak beneen arjuma bay ñëw waaw axrajahu buxaari buxaari yi moo génnee xadis bi ci kitaabu riyaadu saalihin mu doon téere bi ñu naan riyaadu saalihin mbokk yi ci njëlbeenu waxtaan bi lañu déggee ci solo su bés bi yal nañu ko yàlla yénkeewal yal nañu ko yàlla jàppandalal yal nañu ko yàlla kattanal ñu mën ko jëfe nii waaye yiw ya ci nekk ci xeetu jéggalaakoor ci xeetu peyoor yal nañu ko yàlla wërsëgal ñu war ko war a mën a manqué ci bés bi yàlla bu ñu ko yàlla xañ amin ya rabbal alamin yàlla ñu yàlla kattanal ñu war a mën a jëfee lépp lu ñu déggee ci maana hadis yañu yonent bi baaxee sallallahu alayhi wa sallam bis ni ki tey mooy bis arjuma yiw yafa fa nekk yan nañu ko yàlla wërsëgal ñu war ko mën a dund waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a fas yéene jébbal bërëb bi ñay joxe xibaar ci nasaraan na ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahuma ya rabbi aati nufuusanaa taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa nicmal mawla wa nicma nasir allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahumma a'immatana wa wulaata umuurina allahuma ya rabbi ixfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan